ngeen jëf mbokk yéen terror yi safoo di seetaan ba seen TV daleen nag jaam si seen actu du jour tey seen actu du jour dañu koy dooree ak avocat Ousmane Sonko bi lee di woo ci turu maître Ciré Clédor Ly gannaaw ba nga xamante ne nii nag client bi lee di jiital Pastef di Ousmane Sonko daal dinay dakkal li nga xamante ne nii moo di grève xiifal boobee mu doon amal gannaaw ba nga xamante ne nii nag ñu bëri ñu ngi posé wu question ci lu tax Ousmane Sonko daal di bàyyi boobu lépp xiifal nga xamante ne nii rek ci la daal di nekkoon ba daal di loo foon trop waaye maître Ciré Clédor Ly daal dina ci indi ay éclaircissement maanaam ay leeral ci li nga xam xamante ne nii moo di ci boobu lépp dakkal gannaaw ba nga xamante ne nii nag nee na nga xamante ne nii ñoo di diaspora bi muy ñi nekk fii ni ci biir Sénégal ñu ngi doon inquiété wu di jaaxle ci li nga xamante ne nii rek moo di wér gi yaramu Ousmane Sonko ndax tele grève bi baaxul ci li nga xamante ne nii rek moo di état de santé te loolee rek da koy daal di eh, yàq ba nga xamante ne nii nag loolee am na moom Ousmane Sonko mënul woon bañ a déglu loolee nga xamante ne nii rek ñu ngi doon inquiété wu ci moom loolee tax nag mu daal di dakkal li nga xamante ne nii moo di grève bi surtout ci li nga xamante ne ñi moo di santé am ndaxte euh, ci bi moom la nekkoon gannaaw ba a xamante ne ñi rek dafa doon xeexal li nga xamante ne ñi moom la ñu ko teg mu di injustice boobee taxoon mu doon amal lii di grève bu xiifal waaye ba nga xamante ne ñi rek di patriote yi ak Sonko di inquiété wu ci moom di wax rek na bàyyi nga xamante ne ni ci la nekk ni moo di grève bu xiifal bi loolee tax nag Ousmane Sonko daal di koy bàyyi jamono jile te Sonko bi lee di woo ci tiru maître Ciré Clédor doxee moo daal di yëkki yooyee kàddu di indi ay Sonko daal di bàyyi grève bu xiifal bi nga xeexub xiifal bi mu doon amal tax ñu daal di koy yóbbu ci hôpital principal bu Ndakaaru ci service de réanimation ndax dafa daal di sonnoon lool mu maître di indi yooyee leeral jëmale ko ci dàqalu ci hôpital principal bu Ndakaaru daal di sonn lool teewul moom mi lee nag di njiital Pastef di ne yónnee ab message ci màggal gi gannaaw ba nga xamante ne ñi rek ci page Facebook am di addoo xam leen ni rek yoonu jàmm màggalu jàmm sunu borom nangul ñaan yëpp loolee nag du samay kaddu ay kaddu yi kii di leader Pastef bi la di Ousmane Sonko gannaaw ba nga xamante ne ñi nag donte premier màggal boo li nga xamante ne ñi moo di nungu siin foofee ci ne ñi rek foofee la ñu moom leader Pastef bi lee moo daal di yónnee boobu le message yi ñi nga xamante ne ñi rek ñoo di pèlerin yi wutali foofee ca Touba ngir daal di dem ziyaare ci gannaaw ba nga xamante ne ni sax délégation Yewwi Askan Wi kii di El Malick Ndiaye bokkoon ci ñoom ñoom ñee nag daal di nañuy dem sax daal ziyaare ji moom Ousmane Sonko nag bokk ci ndaxte rek dañu ko daal di tëj jamono ji leen nag waaye teewul daal di joxe ay instruction ba ni ñu daal di koy yónneel li nga xamante ne rek moo di message boobee jëm ci ñeel ci màggal gi wax ci leneen mu di mbir mu metti bi nga xamante ne nii rek daal di am foofee ca rentrée Mbàkke gannaaw ba nga xamante ne nii rek ab moto boo xamante ne nii rek ñetti nit ñoo si daal di nekkoon doon dem di màggali gannaaw ba nga xamante ne nii nag ñaar ñaar ca saa sa la ñu daal di ñàkk seen bakkan kenn ka nag daal di am ay blessures yu méttee métti mu nekk nag mbir mu métti lool xawee foofee rentre rentrée bu Mbàkke gannaaw ba nga xamante ne nii sa chauffeur yi ñu ngi leen di wax ngir ñu daal di daw ndànk mu di moto yi mu di oto yi wala sax oto yu ndaxte rek màggal gi bu ñu defee ndànk ñoom ñëpp rek dinañu daal di yegg waaye rek mu nekk mbir mu metti lool rédaction bu Buzz seen di leen ñaanal yàlla yërëm leen te xaare leen aljana di leen njaal seeni bu métti métti daal di xewee foofee ca rentrée bu Mbàkke doon wutali foofee ca euh, Touba ngir daal di dem màggali daal di àddu wax ci avocat bi lee lool ci Sénégal jàppee ko comédien bu mag a mag moom mi leen nag di maître El Hadj Diouf daal di nay wutali moom tamit foofee ca Touba daal di dem ziar ji xalif bi di Serigne gi gannaaw ba mu paree nag nee na Serigne bi daal di na koy ñaanal jëm ci li nga xamante ne ñi rek moo di candidature am ci yile élection 2024 ndaxte moom mi rek jàpp na ne gannaaw ba nga xamante ne ñi bi mu mi di président Macky Sall moom mi leen nag di njiitu réew mi wax ni rek bokkatul moom mi leen nag di maître gis na ni war naa a poser li nga xamante ne ñi moo di candidature am ndaxte rek ñi nga xam xamante ne ni ñoo fi nekk kenn mënu ko si donte muy lépp nag mu di exécutif bi mu di législatif mu di judiciaire bi ndaxte bu dee exécutif def na ko mu di ministre bu dee législatif def na ko mu di député bu dee lii di judiciaire bi nekk na avocat nekk ci lu yàgg yàgg gënuñ koo xam ni nga xamante ne ñi moo di droit loolee nag du samay kaddu waaye kaddu yi ki nga xamante ne ñi la moo di maître El Hadji Diouf la moo daal di yëkki yooyee kaddu ni rek élection 2024 yi daal gis na si boppam bu baax a a baax moom mi leen nag di maître El Hadji Diouf daal di yëkki yooyee kaddu gannaaw ba nga xamante ne ñi nag dem na foofee ca Touba ziyaare ji xalif bi nee na rek daal dina koy ñaanal ci li nga xamante ne ñi rek moom la jëm ngir poser li nga xamante ne ñi rek moo di uh, candidature am ci yële élection 2024 neen ko wutali ca Touba muy woo ci turu Idriss Seck moom mi leen ak njiital parti réew mi lee daal dinay dem foofee ca Touba ziyaare ji xalif bi gannaaw ba nga xamante ne ñi sax bu mu paree daal dinay yëkki ay kàddu di wax ni rek nañu ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi fii ni ci uh, Sénégal moom mi leen nag di Idriss Seck gannaaw ba nga xamante ne ñi gëjoon nañu ko gis lool mu mi lee nag daal dem foofee ca Touba comme ni ñëpp politiciens yëpp ni ñu ko daal di defee moom mi lee tamit daal di nay dem gannaaw bu mu demee nag sëñ ba daal di moom mi lee di Idrissa Seck ci noonu lay àddoo wax ci di woo ci turu Soxna Bator nekk ñu ràññeeloo ci Sénégal à travers série bi lee di euh, famille sénégalaise gannaaw ba nga xamante ne ñi nag moom Soxna Bator daal di nay dem foofee ca Serigne Abdou Karim Mbacké ngir lu ñeel ci euh, màggal gi moom mi lee nag daal di nay yëkki ay kàddu sax ci digganteem ak ki nga xamante ci la ñuy rek moo di Serigne Fallou Mbacké yal na yàlla ay leeram bi lee daal xam nañu rek digganteem ak Serigne Fallou daal dinay euh, bëri lool lu rek mi ngi fàttaliku moom soxna Batoor mooy wax nee na rek yaayam dafa daal di feebaroon feebar bu méttee métti sax ndaxte boobu la feebar dem nañu fu ne dem nañu hôpital dem nañu si ay Serigne waaye rek ba mu demee ca euh, Touba ni rek euh, àndoon ak benn xaritam ni ko rek dama bëgg a dem ci barabu Serigne Fallou gannaaw ba nga xamante ne nii nag dem na fa ci la daal di ñaan di wax ni rek yàlla dama bëgg sama yaa jee yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu wéraat ci barke ki nga xamante ne nii rek moo di jëmm ji tëdd fii mu di Serigne Fallou naa ba nga xamante ne nii sax moom soxna Bator mujj koo yeggali ndaxte rek ay jooy la ko daal di mujj yeggalee mu mel ni rek loole da ko daal di touché daal di koy laal loolu ci li nga xamante ne nii rek am na mu mel nag di soxna Bator mu mel nag moo daal di yëkki yooyee kàddu gannaaw ba nga xamante ne nii nag ma nga foofee ca kër Serigne Abdou Karim Mbacke ngir lu ñel ci màggal 2023 bile des ba tey ci wàllum people mu di Awa Bana nekk danseuse ci ki nga xamante ne nii moo di boy de la musique sénégalaise di Wally Balago Seck moom nag di Awa Bana yaa ma nga foofee ca Touba bis foofee ca kër Serigne Abdou Karim Mbacké comme actrice bi lee tamit di soxna Bator moom Awa Bana yaa daal dinañu koy laaj jëm ci li nga xamante ne nii rek moo di Ndeye Ndiaye Bana yaa ci hôtel bi nga xamante ne nii rek Wally Balago Seck daal dina koy jëlal pour une semaine moom nag di Ndeye Ndiaye gaaral gannaaw ba nga xamante ne ñi nag euh, aw baniya daal nañ koy laaj ci loole nee na moom yëgutoon li ni mel gannaaw ba nga xamante ne nii sax nee na moom Wally Seck yàgg na ko defal waaye moom du ko di médiatiser ndaxte loolee digganteem ak Wally la diggante papa ak doom ndaxte moom Wally papam la ko euh, loole nag du samay kàddu ay kàddu yu awa baniya la daal di yëkki yooyee kàddu moom le nag di awa baniya nee nag mi ngi encouragé di wax ki nga xamante ne ñi moo di Ndeye Ndiaye Banaya mu gën a boppam loole yëkki yooyee kàddu xanaa ba nga xamante ne nii nag ma nga foofe ca Touba ca kër rek nee na ndigal li dañu koy daal di euh, jëfee gisuñ ko mu daal def li nga xamante ne nii moo di euh, make na sax moom sans loolee bu ñëwee Touba def li nga xamante ne nii di ay make-up del daal di euh, sellal te moom dafa daal di a di sellal loolee nag kii a Awa Bane yaa moo daal di yëkki yooyee kàddu bokk ñu doon teewlu ci Buzz Sen TV li lañ leen indi doon ci seen i jotaayu xibaar di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah allah